bismillah asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñu dellu siwaat ak yéen si seen émission bernde ak soxna Billo tey nag ñu ngi leen di indil plat boo xamante ni soxna Njaxat Silla bu euh, New York moo ñu ko euh, commandé woon ñu koy wax payela paella bi nag ce sera fait à ma façon donc euh, lii nag moo si dem dem tey nag dañu am gan bernde gan bu spécial nag ñu koy wax soxna ummi donc soxna ummi bismillah salaamaaleykum man la soxna umi tey nag man maay doon sous-chef Bilo ci Bernde. tey nag dañu am ki nga xamante ni nag moom moo ñuy nekk suñu special guest maanaam ki nga xam ne moom mooy ñëw ñamal ñu togg bi ñu koy wax nag. waaw Kor Oumy Fall. waaw Kor Oumy donc ah déedéet dama dama lay bàyyi yow nga yeggali ko. kon nag Kor Oumy mooy ñëw. Oh, gañe nga eh, xool moom xam ne gañe ah. na de. donc donc ah. yow xane ah. yow yaa ñuy wax tey jii. ah liggéey moom xam neex na. waaw waaye xam nga ma ñam confirmé ko. <laughs> léegi xaaral xaaral defal ndànk bala ngaa ñam. moom il faut da ngay d'accord benn affaire. muy naka su neexee man la. su eh, defal ndànk lool loolu daal mooy. kii bi ba ma gàtt samay palaat dem <laughs> dem moom. su fekkee am na leen lu mu xaw a saf lu bokkul rek xamal ni ah, moom mii la moom la ah, léegi kii kii ko foofu waaw ah. sa sa chéri bi de jàpp si léegi nag foofu la xam nga dañ koy dañ nekk fan lay commencé lay xool ni li ngay wax daanaka déggu ma ko de ah ma commencé fu la neex ah bismillah mm, mm, mm, <laughs> tudd bi doy na ah ah ah man boo ñëwee di ñam da ngay añ léegi il faut ma am ay trois coups doog a xam affaire bi lu mu soxla quoi. <laughs>